taalu wax ji mooy fan yi ñun ñëpp yëg nañ coow lu jëg ju jóg ci àdduna sëpp te coow la sabab sax mën nañoo wax ne ma nga jóge jóge ca soxna soo ñu wax soxna Aïda Diallo kenn ku nekk am nga ci yëg-yëg kenn ku nekk am nga ci xalaat kenn ku nekk am nga ci métit ci ay wax yu jóg jóge fee jaar fee jëm fii dem nag ba wax ji di métti ci biir taali bi yëpp xoli taali bi yëpp da ci am ñag waaye dem ba wax ji yëpp di soywaat ci sëñ bi gannaaw day sawaat sëriñ bi nag sëriñ bi moom naka jekk day leeral li mu nekk soxna soosu ñëw na fi ñaari yoon sëñ bi toog naag moom ñaari yoon yoo xam ne benn bi teewe naa ko ak ay bokki taalibe lam wax si mooy sëriñ Touba dafa digle santaane bind lim bëggee nag ay taalibeem yi soci moom doxi ni mooy la yàlla bëgg yonent bëgg ko mooy ne ci ak jub ne lu leer ne ci lu rafet lu jubut leeru rafetut ñu wàcc ko fa loolu la ko sëriñ bi wax ci njaareem waxaan na ko ca Tuubaa itam ñu màggale ba teg ci ay fan waaye dafa mel ne gindee googu ba léegi des na ay wax di jóg di jaar fu nekk wax ji dellusiwaat ba ci biir sëriñ bi dellusiwaat ba ci biir kër gi ba ci fan yi ñëpp dégg ay wax yu jóg yoo xam ne wax jooju bu ci sëriñ bi waxut dafa mën a jur lu bari ndax bari na ay yoo xam ne am nañu leen naqare loo xam ne kenn ku nekk yaa ngi xalaat noo saafara sa ba tey ci bëccëg am na ñu fi ñëw ñoo xam ne ba ñuy wax sëñ bi wax na leen ci biir wax ji ne leen na ngeen ànd ak seen sago na ngeen ànd ak seen xel ndax Sëriñ Tuubaa xeexut xeexluwut waaye ñoom fañ mujjale seen i wax mooy nin la bëggee ñëpp bëggee la nii duñ seetaan dara lu yàq sa liggéey duñ seetaan lu yàq yoon wi buñ fi jógee lun mën daanu ko def sëñ bi dalan leen dalee nangu ñoo dal kon nag faawu sëñ bi wax li war a wax moom ñu xam ne sëriñ bi nii sëriñ Tuubaa wax mooy la ne ci moom fowut fëluwut du ànd ci caaxaan du ànd ak caaxaan dëggal ci la nekk dëgg lay dëgg digal ñëpp mu ne nag soxna soos ginnaaw nga xam ne dafa jàppee boppam taalibe sëriñ Tuubaa ñëwoon na ci moom diggal na ko li war diggal digal taalibe sëriñ Tuubaa yëpp ba noppi nee na soxna Aida ak njabootu Seex Béthio gépp am nañ seen bunt muy sëriñ Seex moom sëriñ Saaliwu nañu ca sooyi moom muy kilifa ak sëriñ Seex lu muy wax sëñ Cheikh la koy waxal ñoom lu ñuy wax nañ dem wax ko sëriñ Cheikh loolu la sëñ bi wax bëgg ñu xam loolu ñëpp dégg loolu ñëpp gëm loolu ne sëriñ bi foofu la nekk sëriñ moom wut waxu may farfar loo waxu may waaye dara lu leerul dara lu sëriñ Tuubaa dara lu dëgg doxu ca nekku ca xalaatu ko bi daa wax ay yoon ne na ñëpp xam ne muy soon ay jàlloo ak njabootu Cheikh Béthio gépp xam kenn ku ne xam nga Cheikh Béthio ni mu ne sëriñ Saliou lépp lu mu am sëriñ Saliou Serigne Mountakha nag loolee da koy yokk waaye du ko wàññi kon ñoom ñëpp jox leen ndigal dellu ci Serigne Cheikh Serigne Cheikh mooy Serigne Saliou mooy borom kër ku bëgg a dëkk ci kër ga da ngay da jaar ci bunt bi dem ci borom biir kër ga borom kër ga dellu ci ñoom moom mu yéen ci loolu loolu la sëñ bi santaane na ñëkk na ko ñëpp xamee noonu